mbokk yi delluwaat euh, jaajëfal leen yéen ñi ànd ak Thiénaba TV euh, delluwaat wax leen rek asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Euh, di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu kilifa yi jiital ci Baye Serigne Assane Seck xalif général bu Thiénaba ak njobootam jaar ci moom tamit nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi yëpp macha allah di ñëwaat ak yéen rek seen émission spéciale en direct bi ñu leen defal ci bisu gàmmu. Euh, ci suba macha allah ñu àndoon ak yéen euh, ba dem ba ay 14 heures euh, jàpp 14 heures et demi ginnaaw bi nag équipe reportage yi dugg ci dëkk bi macha allah teeru ñi nga xamee ni mooy délégation yu doon dugg biir Thiénaba benn ci délégation yooyu muy délégation bi nga xamee ni moo jóge mbuur te Serigne Mortala sekk bu bàyyi Serigne Ousmane. Euh, teer euh, jiite ko euh, mu nekk délégation bu am solo ginnaaw bi délégation Thiénaba Kajoor bi nga xam ni sëñ Pape Mourtada sekk bu sëriñ mu dikkee moom tamit moo ko jiite waaye teeru nañ fi tamit délégation fédération bu Ndar bi nga xamee ni macha allah fédération bu am solo la. ñoom tamit ñëw nañ comme nañ daan ñëwee waaye Thiénaba TV ànd na ak ñoom comme nam daan ànd ak ñoom démb ak parki démb bu mujj bi rek muy délégation maam Amadou Bamba Euh, bi nga xamee ni euh, macha allah yàgg nañ koo teeru bu ñu gàmmoo ba ca ngoon. Euh, moo tax tey ñu ñëwaat ak yéen comme ni ñu leen ko diggee woon ci suba dalal ñi nga xamee ni macha allah ay borom yi xam-xam lañ. wala ay historiens yoo xam ni spécialité yi ñu am yu ci bari bokk na ci spécialité jàngat histoire ba kenn lañ ci dalal tey encore ginnaaw bi ñu dalalee El Hadj Pape Mor Gueye nga xamee ni moom la mag ñi teg téere bi ci loxoom. Euh, dalal fi euh, El Hadj Ndiaga Makhtar Seck euh, moom tamit nekk historien waaye dalal fii sëriñ maam Bokar maam Bakar Sarr njabootu waa Mérina Sarr yi mu wax ak ñun nan nañ def ba gàmmu si ak ni ñu organiser seen gàmmu tey ñu dalal professeur Souleymane Dia mi nga xamee ni ñëpp xam nañ ko ci liggéey boo xam ni euh, liggéey bu am solo la bu muy def ci biir Thiénaba euh, accompagné xalif général euh, yu ci bari yu fi jaar nekk secrétaire particulier bu xalifa bi ba nekk actuellement jamono bi ñu nekk muy accompagné Baye Serigne Assane di ko jàppale ci liggéey bi liggéey bi rafet lool professeur ñu ngi lay dalal di am mbégte di la dalal ci plateau spécial bi di la bàyyi rek nga nuyoog mbokk téléspectateur bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi jërëjëf euh, Ndiame mhm. ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala nabiyil karim mhm. ñuy yëkkati nuyoo di ko teg ci loxol kilifag confrérie bi kilifag diine ji mhm. Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla may ko mu yàgg fi te mu ànd ak wér may ko ndam ci liggéeyam mhm. di nuyu nag mboolem euh, téléspectateur u Thiénaba TV mhm. ak fu ñu mënti nekk ci adduna bi euh, di leen ñaanal euh, gàmm ak jàmm di leen ñaanal wér di ko ñaanal seen njaboot di ñaan yàlla lépp lu ñu yëngatu ci gàmm gi yàlla na ko yàlla soppi yiw amiin euh, nañ koy yàgg a taxawee euh, yàlla nañ ci yàgg am ndam macha allah hmm. amiin yaa rabbal alamin euh, ci ñaan googu nga ñaan yàlla na yàlla nangu ko hmm. ci barke yonent bi professeur am nañ mbégte dalal la ci plateau bi hmm. waaye ci contexte bi ñu la dalalee mooy bisu gàmmu Euh, Thiénaba euh, muy cent quarante quatrième édition mm. euh, macha allah fii ci biir Thiénaba tey ki nga xamee ni mooy maam Ahmadou Ndak Seck mi nga xam ni moo sos dëkk bi ginnaaw fi mu jaar ci wàllu histoire ba samp dëkk bi mm. question bu njëkk bi mooy maam Ahmadou Ndak Seck ak gàmm est-ce que mën ngañ cee dellusul rek ci wàllu histoire waaw loolu lu yomb la ndax maam Amari Ndak mm-hmm. boo xoolee histoire am mm-hmm. ci côté papaam. produit gàmmoo la. produit gàmmo waaw macha allah bu ma nee produit gàmmo la. Mhm. mooy maam amari Ndaak. Mhm. Euh, li tax euh, ñu jël maam Ndaak Fall. Mhm. jox ko maam Masayer. gàmmo moo ko sabab. ginnaaw dogalu yàlla. ndax dameel birima faat mu cubb. dafa doonoon buur bu ragal ay sëriñ lu tax. maamam. ay sëriñ sëriñ ndakaaru dafa ànd ak sëriñi mhm. jolof ak sëriñi kajoor mhm. attaqué ko mhm. ba nangu kajoor ci moom mooy xeex bi nga xam ni sëriñ si seqoon nañ ko ak buur yi te xeex bi ñëw ba ci Cap Vert Birima Fatma Cubb maamam Amari Ngoone Ndeela jànkonte ak loolu maam euh, ma Sayer Euh, way juru maam Amari Ndaag ñëw Kajoor di gàmmo mhm. Birima Fatma Cubb door a toog doon dameel mhm. mu ni sëriñ bii di gàmmoo mbaa melu ni sëriñ si amoon jafe-jafe ak sama maam mhm. bi mu posé woo question boobu réponse bi moo ko wutali boppam dafa ñëw assister fexe ba kenn xàmmewu ko ci gàmmu gi ñëw fekke si fekke si maam ma sayeer waaye li mu gis dara génn ci yàlla dara génn ci yonente bi moo tax bi mu seetaanee gàmmu gi ba ñibbi mu woolu maama sayeer ni ko dama fas yéene fasante ak yow kóllëre ca biir kóllëre googa ñu fasante ca la jële mbokkam maam ndaak faal nga xam ni ci famille yu masigi la bokk jox maama sayeer loolooy sababu maam amari ndaak euh, di doom ci maam Sayer ak maam Ndaak Fall mhm. kon mhm. produit gàmmo la mhm. waaw donc foofa ngay tàmbalee moo tax maam Amari Ndaak bi mu defee liggéey boobu nga wax ba àggal mënoon euh, naa tànn façon bis bu nekk di ko célébrer bu ko neexoon tànn bisu fekk Cheikhu su ko neexoon tànn bis bi nga xam ne ci lañ ko gaañ sàq mhm. su ko neexoon tànn coowaan bi nga xam ne diine ja fa la taxawe fa la Cheikh waxe mhm. diine ma su ko neexoon tànn sàmba saajo mhm. su ko neexoon tànn bis bi mu ca na ba mu gisoo sàmbam gi mais loolu yëpp da koo teg fële dellu ca cosaanam di célébrer gàmmo ndax delloo lépp ki nga xam ni moo tax lépp am di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy relation bi dox diggante maam Amary Ndak ak gàmmo macha nekk lu am solo kon dégg ngeen. Euh, laaj bi ni ci euh, professeur Souleymane ja euh, ñëwee andil ñu maam Ahmadou Ndak Seck ak gàmmu. Hmm. kon maam Ahmadou Ndak produit gàmmu la. 1882 la ñu sos dëkk bi. Hmm. boobaak léegi xam naa jiitu na gàmmu. cana ba jiitu na loolu. Hmm. ndax wax nga ni maamam. Euh, muy waajuram màmm ma mhm. moo daan gàmmu ca Canaba Kajoor mhm. euh, maam Ahmadou bi mu ñëwee samp dëkk bi euh, continuer di def gàmm googu wax nga ni mënoon naa jël ay date yu bari lim nga ci ay date mhm. ni mënoon na koo jël feete ko di ko célébrer. Hmm. waaye yooyu yëpp mu teg ko fa daal di jël nag bis bi nga xamee ni ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. Euh, juddoo mu koy mu koy feete. Hmm. Euh, tey thème bi nga xamee ni jël nañ ko ci gàmmu ren. Euh, mën nañ cee dikkaat ngir téléspectateur bi gën koo dégg. ban thème la ñu jël ak thème boobu lan la lan lañ ci mën a wax. waaw thème bi comité scientifique bi euh, tànn ren ginnaaw bu ci ay weccante xalaat amee mhm. mooy maam Amary Ndaak mhm. un héritage intemporel mhm. euh, boo ko bëggee firi man nga ni wax rek maam Amary Ndaak ak dono boo xam ni tënkuwul ci jamono maanaam dono boo xam ni jamono ci temps euh, tënkuwul ci dono boo xam ni jamono ju ñëw rek. mën naa ànd ak yow. macha doon sa làmp di la ko niital. Mhm. moo tax euh, tem boobu lañu ñu euh, tànn ren. Mhm. léegi bëgg cee waxtaan nag. nga xam ne di nga indi histoire góor gi. Mhm. mais du doon rek histoire buy nettali. dang ci jeq li nga xam ni moo cay dono. jeexi jikko yu rafet mhm. firil ko nit ñi mhm. jox leen ci ay exemple ba ñu man cee sukkandiku mhm. roy ki nga xam ni mooy seen yaakaar di maam Amady Ndak loolu ci lañu mooy temu ren mooy temu ren ah. euh, wax nga ko euh, dañ ciy jeexi ay ay ay ay ay ay ay jikko waaw euh, ma yoo xam ni ci biir ndono li la est-ce que mën nañ cee indil rek waaw waaw mën nañ ci indi benn exemple xam nga maam Amady Ndak Euh, bi mu jotee lettre bi di fekk Cheikhou euh, na waaje pour fekk Cheikhou kaalak Samba Sembega boti espace yi mm-hmm. euh, loolu yëpp dafa dellu mm-hmm. ci élégance waaw na mu waaje di fekk Cheikhou mm-hmm. dafa dellu ci élégance élégance na mu quitté Kajoor esprit de sacrifice ndax amoon lépp amoon njaboot amoon ay tool amoon alal amoon daraja bàyyi loolu yépp mhm. ngir taxawu ji diine mhm. loolu mooy esprit de sacrifice na mu dajee ak cheikhu mhm. kaal ak sàmba sembega la tekki def bopp neen njañ la di foy foyi mu dellu ca naar ya ay maamam mu jub cheikhu sukkuraam wuti cheikhu soldaar sa daw naan kii ku mu doon wala boog fu mu jóge kii daal moo ñu gën a xam wala moo ñu gën a gëm cheikhu maam amari ndaak téye loxol cheikhu foon ko biir ak biti mhm. cheikhu addu est-ce que ahmadu mhm. waxuma la yow waaye say doom ba ci say sët dootuñu tàggoo war ma dootuñu tàggoo teraanga maam amari ndaak moo gàddu culture war ma dugal ko ci jihaad ji mhm. kon na mu fekkee cheikhu loola la illustré mën nañoo topp loolu étape par étape fu maam amari ndaak teg tànkam rek ñu jot fa benn jikko ni lii la symboliser lii la ci góor gi jàngale topp leen ko loolooy temu ren bi maanaam du doon histoire linéaire mhm. mais histoire au choix la mhm. dañuy tànn ay jaar-jaar yoo xam ni dafa lënkaloo ak ay jikko def focus ci jikko yooyu firil ko nit ñi mhm. pour ñu man koo roy loolooy sensu temu ren bi macha allah mu nekk lu am solo kon mbokku téléspectateurs yi euh, waxoon nañ leen ko professeur Souleymane Dia la ñu dalal euh, bu ngeen ko dégloo di nga xam ni baat ba ma waxoon ni am spécialiste la ci canaba euh, loolu kenn du ko dindi professeur am nañ mbégte ci ni ñu indile euh, thème bi waaye beneen bi may ñëw rek euh, mhm. laajaat ko mhm. euh, mooy quand on d'héritage bu ñuy wax ci héritage muy ndono ndono tamit succession bokk na ci maam ahmadou ndak ginnaawam mhm. njobootam gi ko donn macha allah lan nga ñu mën a tënkal ci njaboot gi ko donn ba tey waaw xam nga dono mënoo ko wax te indiwoo héritier waaw ndax doono nit moo koy jël teg ko ci loxol nit mhm. kooka sàmm ko ba man koo teg ci yeneen loxo mhm. looloo tax maam Amari Ndaak mhm. donoom bi jëkk di taawam mooy maam Momar Talla moom la teg dono bi ci loxoom maam Momar Talla nag doon un héritier particulier li tax mooy man dama koy tudde poste fondateur poste fondateur mooy ku wuutu te xaw a mel ni ku sos ndax Euh, foofu sew-sew histoire la mhm. gis nga ñi fi fonde ay confréries yi maam sëñ Touba maam alaaji Malick maam Amari Ndaak mhm. tubaab yi dañ leen a ragaloon ba mayewuñu leen fu ñu yekk seenug nag mhm. ñoom dañoo sos ba nga xam ni mbir mi sosu na waaye ñi leen wuutu. ñoom ñoo développé. foofu nag dafa laaj mise en perspective yaatal tuuti pour comprendre ko. lu tax ñoom ñu am temps wu. Mhm. def ay action mhm. te ñi sos moom amuñu woon opportunité boobu. mooy tubaab yi entre dañoo changer stratégie. Mhm. bi fi maam Amari ndaag nekkee seen stratégie moo doon brutalisation maanaam jël violence teg ko ci kaw jullit ñi. def nañ ko ci maam Amari Ndaak nañu sëñ Touba. Mhm. tëj nañu limaamu kaso. Mhm. mais lu ñu gën a jëfandikoo brutalisation diine di gën a am doole. ñu ni stratégie bi baaxul nañ ko teg ci suuf jéem a naxante. Mhm. bi ñu nee dañuy naxante nag la ñu changé stratégie ba nga xam ni lëjëlatuñu nit ñi. jamono jooj ñu changé stratégie nag ci la taseeg maam Momar Talla wuutu bapaam moom. am opportunité liggéey en tant que premier xalif mhm. moo tax maam Momar Talla moo takkal diine ji gànjari diine mhm. gànjari diine mooy lan moo tabax jumaa fii ci Canaba mhm. moo tabax jumaa ca Wuro Madiyu moo tabax euh, mosole maam Amari Ndaag moo tabax résidence bi njëkk am ci kër gu mag yamu ca moo dem gosaas wut fa ay tool moo dem dekkal Canaba Kajoor ndax moom bi muy jot ci diine ji amoon na possibilité boobu moo tax man ma tuddee ko post fondateur et architecte, architecte. de la confrérie mhm. muy nag euh, euh, xalif bu exceptionnel mhm. ndax def na fi euh, plus de cinquante ans mhm. donc dafay yàgg. Mhm. te yàgg boobu changé wul dara ci position am. Mhm. xam nga lan mooy position Maam Talla. waaw mooy une position asymétrique. Mhm. maanaam ñaari mbir seq la. nga war a jàng ca bële bi ci des du la yóotu. ñaari mbir yi ko seq. mooy àdduna. ak diine ji diine ji pouvoir spirituel ak pouvoir temporel. mu jël priorité absolue. jox ko diine ji. lépp luy jóge ci àdduna dëdduwu ko mhm. mais mu bàyyi ko palaasam position asymétrique boobu mhm. nga xam ni dunde na ko won ginnaaw euh, àdduna lu ci lu bari boog mhm. téye dignitéem xëy na dinañ ci ñëwaat euh, doon architecte confrérie bi doon un poste fondateur mooy tax nag amoon mon avis de tous les xalifs c'est celui qui représente qui incarne le mieux l'héritage mhm. du madiankisme et l'enseignement de son père macha allah macha allah euh, ginnaaw maam a Ndak Seck comme ni nga ko waxee waaw euh, témoin bu ñu doon bu ñu doon passante la waaw euh, ndeysaan maam maam maam maam maam Momar Talla waaw ginnaaw moom tamit boroom yaaram waaw sëñ Ibrahima Seck waaw moom tamit ak ni mu ni mu meloon ci jamono waaw moom tamit looñ ci tënk la xam nga boroom yaaram ci mhm. beneen étape la ñëw waaw jàngatee histoire këru diine yi mhm. dafa am les fondateurs mhm. am les architectes mhm. fondateurs yi mooy maam Amari Ndaak architectes yi organisé mooy maam Momar Tall sëñ kër sëñ Moustapha ak ñooñu ñi ci topp les troisième xalif mooy les consolidateurs ñi nga xam ni dañoo ñëw pour dëgëral mbir mi sëñ Ibrahima ci la bokk seen particularité mooy dañoo bokk ci ñi bind histoire réew mi dëgg bi ñuy def deuxième guerre ñoo fi nekk bi ñuy voté loi cadre ñoo fi nekk. Mm-hmm. Euh, constitution de 46 ñoo fi nekk. Mm-hmm. constitution de cinquante 58 ñoo fi nekk. Mm-hmm. bi Sénégal di jot indépendance ñoo fi nekk ba imposer Senghor diine ji am cër. ci réew mi nar a tàbbi ci loxo yi nit ñu ñuul ñi. événement 62 ñoo fi nekk. code de la famille ñoo fi nekk donc consolidateurs yi dañoo bokk ci ñi bind histoire réew mi mm-hmm. moo tax ñu am euh, position bu fës mm-hmm. nga xam ni ñëpp a leen xam mm-hmm. sëñ Ibrahima sëñ Fallou sëñ Babacar euh, dañoo siiw parce que dañoo bokk ci ñi bind histoire réew mi sëñ Abdoulaat sëñ Ibrahima nag am beneen particularité fii ci Canaba ndax ni mu doon doxalee ak envergure yi njàmbaar gi ak le sens de l'exercice du pouvoir sëñ Ibrahima dafa xamoon nu ñuy diriger une Euh, société une mhm. communauté mhm. waaw ba ci ni muy organiser ay dëkkuwaay mhm. xam nga apparat forme de pouvoir la lii feeñ dafa bokk ci ni ñuy téye pouvoir palais lu tax muy fés te jafe yegg waaw dafa symboliser pouvoir tenu lu tax muy impressionner nit outil de pouvoir la dëgg la langage administratif ni ñuy binde ci administration yoo xam ne bu ñu la ko jàngalul doo ko xam doo ni sax mën a binde mhm. dafa bokk ci ni ñuy téye pouvoir mhm. sëñ Ibrahima buggul woon àdduna mais dafa comprendre woon loolu mhm. moo tax mu defar sanc ba am ah. écurie dugal fa ay chevaux de race oto yi gën a rafet ci réew mi lay dawal du woon bëgg àddina mais dafa xam ni lii ci ni ñuy téye pouvoir ba état respecté la ci la bokk loolu ci ay dimension la woon amoon na yeneen dimension nag mais ginnaaw dañuy tënk war a ñëwaat ci yeneen xalifa macha foofu la ñuy yem ci sëñ Ibrahima. macha allah mu nekk lu am solo kon mm. euh, euh, sëriñ Souleymane. Mm. Euh, ñëwal nañu ci ci ci ginnaaw bi ñu jógee ci maam Ahmadou Ndak Seck. Mm. ñëwal nañu ci maam Momar Talla Seck dégg ngeen ko. lu ëpp juróom fukki at. mu ngi ci xilaafa gi ak taxawaay yi ngi ci taxawoon moom ci jógee doomam muy taawam tamit muy Serigne Ibrahima nekkoon xalifa de 46 à 73 73 mm-hmm. bi Serigne Ibrahima Seck nelawee mm-hmm. rakkam muy Serigne Baye Alfa du Seck Euh, mi nga xam ni Canaba euh, Kajoor la féete woon. Euh, hmm. moom nag bi jàll bi ñëwee ci loxoom. waaw moom moo ñëw Canaba tamit uuf njaboot gi dund ak ñun fukki at ak juróom. waaw Serigne Ibrahima Serigne Alpha Mamadou. Serigne Alpha moom dama ko tuddee. waaw un recteur de daara à la tête de la confrérie. <laughs> maanaam xam nga Canaba Kajoor en fait. Uh-huh. Euh, daara la moom moo masa doon recteur bi mm-hmm. jamonoy papaam mm-hmm. ba ni mu ñëwee Thiénaba mm-hmm. moo tax bi mu ñëwee ci xilaafa gi li gën a fës mooy xam-xam ndax lool la xam dëgg moo jàngal ñi ëpp ñu bari boog ci ay rakkam doonoon boroom xam-xam bu wér moo tax bi mu ñëwee Thiénaba xam-xam dafa fës ci xilaafaam dëgg la am na ñaan yoo xam ni comme ni ñuy tudde ba léegi moom moo ko fi bàyyi ak maanaam daal moom dafa gën dugal xam-xam ci gouvernance su confrérie bi mhm. moom ci ay particularité am mhm. la bokkoon ba mhm. pare nag am une force porte une forte personnalité euh, am euh, taar nit ñu sopp ko dafa amoon charisme sëñ Alpha macha allah waaw mu nekkul am solo kon Baye Alpha du Seck euh, moom la ñu professeur doon tënk rek damay wax ni ñoom ñëpp koo ci jël rek doyoon ne ab émission kon moom en 88 moom Baye Alpha Mamadou moom tam bi mu nelawee rakkam Euh, muy bàyyi Serigne Mouhamadou Li Seck. waaw euh, waajur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi koy mm. ziara. Mm. ak Serigne a Seck boroom ndigal mi nga xamee ni euh, moom tamit jàmbaaru mm. Cheikh Thiénaba la bàyyi Serigne Mouhamadou Li. ñeenti at la fi def. moom luñ lan la xamal ndaw ñi ci xilaafa. sëñ Baye Modou man li may retenir ci moom. Mm-hmm. mooy dal gi ak mm-hmm. jàmm ji. Mm-hmm. loolu nag il faut nit ñi comprendre ko mhm. maanaam jubluwuñ ci sulli ay ay histoire yu amoon difficulté déedéet mhm. mais histoire moom li xew rek ci lay joggi dëgg la Baye Mood li dafa jël xilaafa gi mhm. ci moment de transition xilaafa gi war a génn ci ab famille dugg ci beneen famille mhm. tuuti tension am mhm. mais mu gere ko ak dal goo xam ni ñëpp fàtte nañu loolu waaw mhm. bu amoon beneen tempérament sekel yi mën na fee des ba léegi am na dëkk yoo xam ni boo fa demee sekel yaa nga fa tey ba ci espace bi dëgg la mais Sénégal benn sekel amu fi loolu bokk na ci force mbaay móot toogee na mag waaye gëlëmul benn yoon jafe-jafe bu mas am traité na ko avec calme traité na ko avec dignité ba nga xam ni ñëpp fàtte nañu difficulté yooyu amoon ndax benn sekel amul pour man loolu mooy bilan bi gën a rëy ci bilan Baye Baye Serigne Mouhamadou Ly Seck waaw euh, ñeenti at la fi def yu wecci ñeent fukki at comme niñ koy waxee mm-hmm. euh, ginnaawam tamit rakkam mm-hmm. euh, Baye Serigne Ousseynou Khoudia mm-hmm. mi nga xamee ni histoire bindal na ko ni jaay na ay këram def ci grande mosquée bu Canaba mhm. euh, moom Baye Serigne Mouhamad euh, Baye Serigne euh, Ousseynou Khoudia mhm. ñu ngi ziyaara xalifaam mhm. Serigne Mouhamadou Roqe ak njabootu Baye Serigne Ousseynou Khoudia yëpp ñu ngi leen di ziyaara Baye Serigne Ousseynou Khoudia particularité man Baye Serigne Ousseynou Khoudia ginnaaw dañuy tënk ñaar laay retenir ci moom Euh, bi ci jëkk wax nga ko léegi mooy ku tudd jumaa ji tudd ko waaw ndax moom mooy jaay ay këram Dakar ñëw investir ci jumaa ji mhm. ndax booba jumaa ji fi newoon mhm. taarixe ne tout mais tuuti na màggat na problème sécurité posé wu mhm. mu jël responsabilité boobu ba ku ci liggéeyat ginnaawam ci li mu defoon nga sof loolu moom lu taarix di retenir la pour toujours. Mhm. mais beneen aspect bi nit ñi dul bàyyi xel. Mhm. mooy diplomatie ba. gis nga lu tax xalifa bu fi mas a nekk teg ko ci wetam. Mhm. li ko dale ci sëñ Ibrahima. ba ci Baye Motli. moom dafa amoon le sens de la diplomatie. maanaam mën a foy tension mhm. mën a fexe ba kilifa yu déggoowul déggoo mhm. moo tax sëñ alfa raar na mu daan tukki bàyyi ko ginnaaw mhm. bàyyi móot lim ci loxo euh, ci ci ci ci euh, loxol ndi jooram la bokkoon loolu forsam la woon sens de la diplomatie. Mhm. te loolu defe naa ki ko ci doon wettali mooy sa papa. ñoom dañoo doonoon ñoo xam ni. Mhm. jikkoy puso la ñu yor. Mhm. ci biir communauté bi. donc ñaar yooyu. ci tënk mën nañ koo retenir. ci Baye Ousseynou Koudia. macha euh, allah moom tamit euh, bi mu fi jógee. Euh, macha allah defe naa 92. waaw mu juumul la fi jógee. bàyyi fi rakkam bàyyi sëriñ Ousseynou Xaar. de de quatre vingt. Euh, Baye sëñ Modli moo fi jógee 92 Baye sëñ moo fi jógee 92. waaw waaw Baye sëñ Mo Baye Sonu Khoudia. 99. 99. waaw euh, bi mu fi jógee Baye Sonu Khoudia en 99. waaw euh, rakkam Baye sëñ Ousseynou Xaar. boroom borom sikkar leen. ndax seen sikk dañ. waaw macha allah ñu ngi ziare ab xalifaam sëriñ maam Aliou Seck. ak mm. njabootu Baye sëñ Ousseynou Khoudia mm. Baye Ousseynou Xaar. Baye Ousseynou Xaar nag foofu. Mm. professeur Souleymane Dia ci gëstu bu ndaw bi ñu gëstu. yaakaar naa ni yow yaa nekkoon. Euh, secrétaire particulier am ah, yaakaar naa foofu sax nga commencé voilà euh, nekk secrétaire particulier xalifa canaba yi mhm. euh, particularité Baye Ousseynou xaar ginnaaw dañuy tënk laa aussi ñaar tàmbali nga ci benn bi junj nga ko mooy bëgg yàlla gi Baye Ousseynou xaar su jógee rek ci yàlla la jëm mhm. jëmul feneen mhm. te nag di ko wax ci xaal boo xam ni ku fa mhm. toog mhm. di nga roog di nga duy dëgg day impressionné ñëpp ba ci homme d'état mhm. ndax moom euh, la passion de Dieu laa ko tuddee Serigne Ousseynou Xaar ou la passion de Dieu euh, ñaareel ba mooy mën a partager. waaw alal. joxe rek la ci xam dafa tabe ndeysaan bàyyi Ousseynou xaar. Mhm. su ngeen àndee ñu jox ko dara. Mhm. da koy seddoo ak yéen. man ànd nañ ci oto. Mhm. taalube jox ko cinq cent mille. Mhm. quatre lañu woon ci oto bi ku nekk jox na la cent cinquante mille. Mhm. en tant que xalif général en tant que xalif général. Mhm. bàyyi Seynou Xaar ànd nañu jóge pale bi ab Ablaye Wade door a toog. bi ñu yegsee xaalis bi ko ab Ablaye Wade joxoon. man la ni duggal ca néeg ba defar li si séddale ko. joxeel ku ne trente ba xam fu ñuy yem mm-hmm. ku ne jox ko trente mille ndax som ba bariwul woon boobu waat Ablaye laay da dangi door a toog mm-hmm. may séddale di séddale ba xaalis ba def des quatre-vingt mille mbooloo mi jeex waaw góor gi dugg si ni ma noo def ma ni ko ñëpp am nañu mu ne ñaataar ci des ma ne ko fukki junni ak juróom benn mu bëgg a jël trente mille jox ma mhm. sama yaram daw ma ne ko am naa booba fekk na <laughs> amuma mais sama yaram a daw ndax li mu bëgg séddale lépp mu jeex mhm. loolu ci ay jikkoom la bokkoon mhm. bàyyi seen waaw mën a partager mën a sédd tabe macha allah voilà euh, macha allah mu nekk lu am solo kon. Hmm. Euh, borom sikkar leen hmm. euh, ku sikkar sa sikk dañ. Hmm. moom 2008 yaakaar naa ni la nelaw. waaye bi mu nelawee tamit rakam. Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck borom alxuraan. moom nag moo jël xilaafa gi moom tamit bokkoon nga ci ñi ko jigee en tant que secrétaire particulier mu nekkoon koo xam ne tam yaakaar naa marqué na jamonoom nag. waaw Baye Cheikh Ahmed Tidiane. waaw ci lu wér. xam nga waxoon naa la sànq ni sëñ Alpha. waaw bokk na ci ay point effort mhm. dafa dugal dafa maanaam gën a marqué xam-xam. ci xam-xam ci kër gi ci kër gi. Mhm. Baye Cheikh nag loolu da cee yegg fu sore sore sore. Mhm. ndax moom ni mu ko doon jëfandikoo. maanaam Baye Cheikh. nit ñi dafa am lu ñu xamul mais c'est un érudit. c'est un érudit. érudit mooy ku géeju ci xam-xam. ndeysaan maanaam domaine yu bari ci xam-xam boo ca duggee. Mhm. la mu ca xam dafa bari ba jéggi dayoo. Mhm, mhm. man dama daan waxtaan ak moom. pendant des heures. ci xam-xam. mais Baye Cheikh fi mu yegg ci xam-xam néew na ku fa yeggoon ci réew mi. loolu nag dafa déteindre. ci xilaafaam. réew mépp respecté cana ba. à travers xam-xamu Baye Cheikh. Mhm. surtout maîtrise u alxuraan. Mhm. amoon na beneen qualité bu nit ñi xamul. waaw mooy Baye Cheikh amul complex pouvoir temporel. lu mu la war a wax da koy wax ak yow. lu mu war a jëfanteeg yow da koy jëf ak yow. Mhm. moo tax nag ñoom ñu respecté woon ko ba lu baree bari mu jële ko ci ñoom. investir ko ci dëkk bi ci xilaafaam. visage yu dëkk bi dafa changé. radicalement. loolu bokkoon na ci ay mandargay. Baye Cheikh. Mhm. tabe gi ma doon wax ci Baye Ousseynou Khoudia. Mhm. Euh, Baye euh, Ousseynou Xaar. mi ngi woon. ci ci ci Baye Cheikh. joxe. Mhm. sol poos yi xaalis ba mu fees. mu xëy di joxe. mais li gën a nit ñi nag mooy ni mu mën a taxawee ci soxlas doomu aadama. sur le plan social moom il est incomparable. Baye nga ñëw wax ko soxla. lam ca war a taxawe la cay taxawe bu ko téléphone ma nee réglé mu jël téléphone bu ci doyul mu jóg. bu jaree mu gis kilifa gi tëye loolu mu dem ba gis ko macha looloo tax Baye Cheikh moom image boobu waxuma la canabam mais moom la bàyyi ci réew mi mhm. man xam naa ci dara bari na ñu mu xam ni lijjanti na seeni mbir te xamul sax nu ñu tudd dama daan toog ba yàgg mu woo ma ni ma gëstul ma euh, euh, mbir sàngam kuy boroom ak fu mu dëkk ndax nee nañ ma sotti na tax xamatuma mooy kan waaw mm-hmm. looloo tax dëjëm nit day ñëw xiin xiini ba yàgg mu ni la ku may jaale mm-hmm. nga ni ko kee sëñ Modou wala kee sëñ Njaga <laughs> ndax dafa jaar ak ñoom foo xam ni mm-hmm. faaw ñu jaale te xamuñu sax ay mbokkam ba di ko jaale moom social il était incomparable ak yeneen nag macha waaw macha allah mu nekk lu am solo moom tamit 2020 euh, Euh, ci la nelaw bàyyi sëriñ si Ahmed Tidiane mm-hmm. euh, bi mu fi jógee rakkam euh, mm-hmm. bàyyi sëriñ Abdourahim Seck mm-hmm. macha allah yàggu fi. ndax 2021 moom tam la dem fekki ko. waaye nag fukki weer ak ñeent su ma juumul. waaye nag fukki weer ak ñeent yoo xam ne mën naa wecc ay at yu bari. waaw Baye Serigne Abdourahim Seck. Baye Serigne Abdourahim Seck. Euh, toogaay bi gàtt na. Mhm. mais dafa marke mhm. communauté bi dafa marqué diine ji. dëgg pour mbir yu bari. Mhm. Euh, am na ci loo xam ni zaayir la. lu mel ni élégance bi. waaw mën a solo gi. taar bi. loolu dafa marqué nit ñi. diplomatie bi waaw ak diplomatie bi. loolu dafa marqué nit ñi. mais li gën a marqué nit ñi mooy jéego yi mu jëkk seqi da nga xam ni lépp. boole dajale defar mhm. bennale la na mu nuroo namu nuyoo ji bàjjan na koy mbay mhm, mhm, kàddu yi mu jëkk a yëkkati ci pénc mi waaw ku ñëw ma boot la waaw ku ñëw ma boot la ku ñëwul dinaa la jëli boot moom loolu moo marqué nit ñi ak bëgg lu baax mhm. li mu jëkk am xool ni mu ci defaraate devanture kër bu mag gi te mënoon na koo yóbbu feneen mhm. Mhm. waaye loolu mooy li nga xam ni impressionné nit ñi ñu bari jàpp nañ bu fi yàggoon dina réaliser lu bare bare bari ndax diplomatie bi fexe ba mën a wax ak ñëpp fexe ba ñëpp rus la am njariñ nag macha allah dinaa nettali benn anecdote gàmm gi mu fi def waaw xam nga Baye Cheikh daf ma wutaloon quota ceeb waaw Euh, bi mu fi jógee muy dox bi bàyyi du ñëwee mhm. quota bi ma jot ci mhm. terewul mu yónnee ma ceeb mhm. ma ni sëñ Ibrahima doom soo demee neel sa papa am naa mu ni ma waaw téyal rek dinaa ko wax xam naa ni waxu ko bi ma ko gisee ma wax ko Baye Abdou mu ni ma loola nga am état moo la ko may sama yónnewu <laughs> lii man maa la ko bëgg a jox ngir nga xam ni am naa yéene ci yow. très bien macha allah loolu am na solo waaw ba moom noonu la melo loolu mooy diplomatie bi nga doon loolu mooy diplomatie xam nga bu dul woon diplomate daan kee am na. kon mais gis nga jël na loolu. Mhm. waaw suñu diggante la xool. Mhm, ndeysaan waaw ndeysaan mu nekk lu am solo. Euh, mhm. Baye Serigne Abdou Rahim Seck. Euh, ñu leen di ñaanal ñoo ñu tudd fii yëpp nag. yal na yàlla oyofal suuf seen kaw. Euh, dugal leen àjjana te ñu dëkk fa comme ni ko bàyyi seex daan ñaane. ginnaaw Baye Serigne Abdou. Baye Assane moo jël ndono li waaw yàlla na fi yàgg te wér macha allah moom tamit yaa ngi ci wetam di ko jàppale mm-hmm. euh, ni ko ñu bari di jàppale mm-hmm. euh, Baye Assane euh, lan lañ ci mën a wax ah, Baye Assane passion bi daal mooy mm-hmm. bëgg liggéey waxal na ko boppam ah. moom dafa bëgg mm-hmm. euh, dafa dem ba ci ànd ak impatience sax mm-hmm. daal di soppit radicalement visage yu dëkk bi tabax defar waaw yéene ji moo yéene ji moo rëy waaw moom moom passion boobu la am mm-hmm. moom dafa jàpp ni euh, dafa wuutu ñoo xam ne ñu ci bari ay mag la ñu woon donc war naa yeggale seen yéene war naa daal révolutionner mhm. mhm. visage dëkk bi mhm. moom vraiment loolu booy waxtaan ak moom en privé da ngay gis ni passion am la dama ragal échec boobu muy wax mooy dafa ragal euh, bañ fee bàyyi bilan boo xam ni ñëpp a ciy teg seen bët loolu lay wax moo tax moom loolu mooy euh, passion am waaw bëgg réaliser coûte que coûte euh, un bilan boo xam ni ñëpp a ciy teg seen bët. commencé na ko ci gis nga ci armée lu baayam ak liggéey bu mucc ayib biñ ko mm-hmm. liggéeyee mm-hmm. mais am na yeneen projet yoo xam ni bu ko ci yàlla jàppale incha allah. liggéey boobu nga xam ni dafa am passion bi. Mhm. yàlla dina ko ci dimbali. macha allah mu nekk am solo euh, mhm. wax nañu maam Ahmadou Ndak ak gàmmu. waaw euh, topp héritage am. muy ndonoom. waaw euh, benn par benn ñi ko ñi ko wuutu. waaw ba ci bàyyi Serigne Assane. waaw tey nag damay delloowaat question bi ci neneen xam naa peut-être mooy nekk bu mujj bi. am mooy avant dernier bi. mooy avant dernier ndax avant boobu <laughs> man saa bu ma limee xalifa yi ba pare rek. même bu may bind noonu laay def. dama ciy boole le mystère des espoirs confrériques déçus maanaam. foofu laa jëmoon. waaw tuuti ah. foofu laa jëmoon. <laughs> ay ca boog delloo naa la delloo naa la su fekkee comprendre naa li nga bëgg a wax. waaw euh, yaakaar naa ni foofu laa jëmoon. mooy euh, maam Ahmadou Ndak ak njabootam gi gi doon nañ te xilaafa gi. waaw waaye am na ci. Mhm. njabootu maam Ahmadou Ndak. waaw boo xam ni marqué nañ seen jamono donte mhm. jaaruñu ci xilaafa gi. Mhm. yaakaar naa ni euh, ñooñu mën nañ cee lim rek quelque. waaw donte mën nañu wax ñëpp lañ. waaye am na ci ñoo xam ne marqué nañ ci daal. waaw seen seen seen euh, seen wàll. waaw donte jaaruñu ci xilaafa gi. waaw kon foofa gis nga ni niñ ci bokkee gis-gis. ñun ñaar waaw loolu laa la doon wax avant dernière question. ndax xaw ma woon li nga jàpp mais. ñoo ci euh, daje daje. waaw euh, loolu dafa yàgg ba mhm. maanaam mat sëkk sëñ Thiénaba. waaw ba ñëpp xam ko te yegg si woo. dal na maam Ibra Penda. Mhm. dal na euh, sëñ Souleymane Seck papa yi sëñ Pape Seck Murtada waaw dal na baay Jibi Seck dal na Baye Mbay Seck dal na Baye Ousmane mhm. dal na sëñ ma dikke Baye Taalaxaar mm, waaw <laughs> euh, dal na Baye Taalaxaar dal na ñu bare ba dal na Baye Njaga Baye Njaga Maxtaar waaw Baye Njaga Maxtaar sëñ Maodo mii mujj a dem sa xool ni mu marqué nit ñi maanaam loolu dafa yàgg ci kër gi euh, yàlla mooy doxale noonu nag mhm. mais mhm. li muy feeñal rek mooy qualité nit ñi waaw ndax boo limee sëñ Ceenaba yi yi ñu toll muy neuf fi mu ne ci man ngaa lim lu ko ëpp fuuf ñoo xam ni matoon nañu sëkk sëñ Thiénaba dëgg la waaye yàlla ak mhm. mel ni Baye Taala Xaar mhm. looy xool ci sëñ ba rek mhm. mi ngi ci moom waaye yàlla dogalul mu yegg si waaw loolu nag dafa marqué nit ñi ci mhm. canaba mhm. yàllaa xam nu mu ko defee nag mhm. waaye téréwul ku ci nekk la nga waroon a taxawee ci kër gi la nga waroon a taxawee ci sa njaboot taxawe nga ko d'ailleurs moo waral fàttaliku bi ndax bu fekkonte ni amuñu bilan dëgg day anon dañuy anonyme mais li ñu liggéey donte yegg siwuñu ci xilaafa moo tax nit ñi bàyyi leen xel ba di leen fàttaliku ni ñuy fàttalikoo xalifa yi ñooñu nga lim mu nekk lu am solo. Mm. xam naa euh, beneen euh, laaj bi. Mm-hmm. Euh, njaboot gi. njabootu deret gi lañ doon wax. waaw waaye nag maam Ahmadou Ndack aussi amoon na ay kàngam. waaw njabootu njabootu leer. Mm-hmm. ñoo xam ne ay ñii mën nañ leen tudde ay xaddam mm-hmm. waaye ay ay wénkër lañ ci kër gi. waaw ñooñu ba rôle lañ joué ci ndono li ak ñan lañ ci mën a rocci comme exemple. rôle bu rëy a rëy te loolu ma nga tàmbale ci maam Amari Ndack. bi mu toogee ni mu organisé. dafa jël dëkk bi. dénk ko mbokkam yi sant Fall. doxale leen digganteem ak administration. ñii mu dénk leen tool yi. maam ma joojo Fall. waa taalin maam njobotaal maam di moom moo doon jiite. Mhm. mais bu fi nekkul jiital. Mhm. Euh, jiital euh, maam Ndioba Tall mhm. wala sa maam mhm. Moussa Gueye kon loolu naka jekk mhm. ndax maam Amari Ndaak dafa am loo xam ni ci philosophie la bokk muy le concept de nawle boo ñëwee ba bokk ak moom pas-pas tënku ci li mu tënku gisatul sant naa la wax benn mbir boo xam ni man na sax euh, ya euh, réere woon réere naa ko lu yàgg maam Amari Ndaak nit daana daw làqu si fii ndax persécution ceddo yeeg tubaab yi. Mhm. mu santale ko sekk te fekk santul sekk. est ku ko mag ñi expliqué wul doo ko xam. est-ce que duñ la ñooñu lañ daan wax tàbbi raw. waaw waaw xam nga kuy def loolu. fa ngay yéege concept nawle. Mhm. fu kawe la. seetal loolu kuy defal loolu jàmbur bu làqu si nag mhm. say mbokk ak ñi nga àndaloon jihaadi ak sa taalubéy bopp mhm. taxul ñuy wax dëgg la maam Amari Ndaak moo fi bàyyi culture boobu le mhm. concept de nawle nawle ba nga xam ni ñi ko wuutu ñëpp dañ koo doxal dañ koo dundal moo tax dëkk bi ñi ko daan yilif ci lu yàgg a yàgg ñii Cissé la ñu sant. Mm-hmm. Mbokar Cissé. Mm-hmm. Alaaji Taala Cissé. Mm-hmm. jumaa ji. Euh, ñi ko daan jiite. ñi ci ëpp. Euh, daawuñu sant Seck léegi lañ ci dugal macha allah imaam yu sant Seck. waaye Mandir Faye. Euh, papay euh, coordonnateur nu mu tuddati. Euh, coordonnateur euh, Abdou Nying papaam Baye Baye waaw. damaa fàttali Ndiaye Nying waaw Baye Mour Ndiaye ah, Nying. <laughs> waaw imaam ratib la woon Baye Bakar Sarr. Baye Bakar Sarr. Mhm. la woon El mhm. Hadj Serigne Diop. imaam mhm. kii Dieng. Baye Mor loolu yàgg na ci dëkk bi maanaam. Euh, nawlonte bi jël euh, responsabilité partagé ko mhm. nga maam Mor Gueye mhm. rôle bi mu amoon ci wetu maam Talla mhm. ndax xam-xam ba dëgg la ah te santul sekk waaw xam nga rôle bu rëy a rëy la amoon ci wetu góor gi euh, am ko ci wetu sëñ Ibrahima rôle bu ni mel sëñ Njàmme amoon ci seen wet Oustaz Alioune gis nga ni mu marqué histoire u ba maanaam loolu lu fi yàgg la dëgg la mën ngaa lim daanaka famille yu mag yëpp famille Mbuubeen seen famille Thialé mhm. maam Amari Ndaag am na doom joo xam ni maam Maxtaar Sall la ko tudde dafa teel a nelaw waaw xoolal loolu loolu mooy nawlante bi mooy nawlonte bi mhm. ñoom ñoom noonu la ñu dundee mhm. loolu la fi bàyyi te euh, njaboo tamit wax dëgg yàlla euh, téye nañ ko ndax maam Amari Ndaag dafa am jikko boo xam ni da koo dund jàngale ko bàyyi ko fi muy woyof mhm. woyof dafa am solo mhm. foo gis ku diis mhm. am na lu muy nëbb la muy nëbb mooy distance bu rëy ci jikkoy biiram ak ni mu mel ci pénc mi boo woyofee nag waaw sa jikkoy biir mooy feeñ ci pénc mi maam Amari Ndagul loolu la tarbiya ak njabootam moo tax ñu woyof ndax woyof mooy lan ni ma mel ci biir laay mel ci biti awma protocole boo woyoful nag ci ngay wut protocole ndax la ci jublu mhm. protocole boobu mhm. mooy làq sa jikkoy biir ba waa penc mi duñ ko xam mhm. doo neex a gis doo yàgg fenn ainsi de suite genre euh, généralement protocole stratégie de dissimulation de taar la <laughs> macha allah macha allah yaakaar naa ni yéen ñi ànd ak ñun Euh, boobu ba léegi euh, am ngeen mbégte nag am ngeen mbégte ndax hmm. euh, Thiénaba TV présenté na leen plateau boo xam ne plateau spécial la hmm. waaye plateau bu bu bu am bu am bu am bagage la boobu laa koy tuddee hmm. professeur tey seq nañu waxtaan en toute liberté mu nekk waxtaan woo xam ne génn na ci lu bari taalibe yi ñu bari dinañ koy gis ci pencim Thiénaba mu taxaw wax histoire waaye temps ba day gàtt tey nag kon bu ñu leen mayee occasion peut-être ñu def quelques minutes toppee ko noonu ñu ko toppee muy ndonol maam Ahmadou Ndak Seck mm. ak loolu mu ñëwaat ba ci euh, njobootu euh, leer geeg njobootu deret gi mm. ak mag ñi ni doon dundee ak nawlente gi nga xamee ni macha allah moom moo mm. moom moo amoon professeur yaakaar naa ni duñ la téye lu yàgg. ndax mm-hmm. euh, yitte yi mu ngi ci kanam. Mm-hmm. Euh, bu ko defee xam naa dañ lay delloowaat kàddu gi. Mm-hmm. Euh, bu ko defee rek nga joxe message muy yóbbal boo xam ni taalibe yi ñu ngi koy déglu. ak waa Thiénaba TV. waaw yóbbal bi de moom daanaka rendez-vous ndax bari na lu ñu doon waxtaanee fii. am na ci tomb yoo xam dinañ ko xóotal suba incha allah. ci message yu seriñ bi. bu ñuy développer le thème de maam Amary Ndak. héritage intemporel li ci des nag mooy. maam Amary Sëriñ Ndaak histoire am riche na mhm. mais li ci ëpp solo mhm. mooy mu servir d'exemple maanaam euh, loo xool ci histoire am rek téye ci loo def ab royukaay mhm. damaa wax maam Amari Ndaak mais mag ñëpp noonu lañ leen war a def ndax dono mooy lan au fond posé nga question bi léegi dono mooy am taxawaay ba li ñu def ci yow nga def ko ci ñi la war a wutu ëllëg ndax li ñu def ci ñun judduwaale wu ñu ko passé témoin bi waaw buñ ko deful woon ci ñun mm-hmm. yii ngeen di def nii taxawu diine yooyu du doon sax suñu ittee dëgg la ba ñun ñu koy jéem a partagé ak téléspectateurs yi di ko jéem a def ci suñuy doom dëgg la loolu mooy ndono mm. bu la yàlla baaxee nga am wayjur yu taxaw am mm. taxawaay ba def ci yow ay qualité def ci yow jikko yu rafet sa mission mooy yawit defal loolu postérité bi maanaam ñi nga féete aw sas la aw sas la aw sas mm-hmm, mm-hmm. waaw mm-hmm. sas la woo da nga fee fekk tool ñu bayal la ko ba mu set rikkuwaay booy dem bu fi bàyyil xale yi tool bu am xaaxaam loolu mooy héritage ndeysaan macha allah looy tàggoo professeur waaw di <laughs> ñaanal ñëpp gàmmook jàmm amiin na ñëpp gàmmo ci jàmm amiin euh, ñi fi dëkkul dellu ci jàmm amiin ñi fi dëkk des fi ci jàmm amiin amiin euh, te mboolem lu fi jaamu yàlla ci guddi yonente bi yàlla na yàlla fay ko ko te fulal ñu euh, di leen jaajëfal yéen tamit euh, vraiment mm-hmm. euh, ndax gis naa ni yéen a ngi xalaat ndax ku xalaatul du génne ay concept waaw lii concept la dëgg sa émission boobu quarante cinq chrono concept la waaw waaw moo tax mhm. yéen a ngi xalaat mhm. yéen a ngi innové mhm. yal na yàlla jàppale leen da ngeen bokk ci télévision yi ëpp doole ci réew mi yàlla man na ko am nañ ci espoir amin salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waaleykum wa rahmatulahi taala wa moom la ñu dalaloon plateau spécial euh, fii ci Thiénaba TV euh, macha allah muy concept boo xam ni wax na ko euh, tey nii la ñu ñëwee ak yéen en 2023 xam naa euh, xalaat yi bari na fi euh, xalaat yi bari na fi euh, appel bi may lancé rek mooy yéen Thiénaba TV yéen a ko moom yéen ñi jàkkaarloo ñun ndax damay wax la télévision de Mame Ahmadou Ndak Seck te ñun ñëpp ay taalibe Mame Ahmadou Ndak la ñu Mame Ahmadou Ndak la ñu gëm te philosophie Mame Ahmadou Ndak la ñuy dund kon ku nekk dafay am foo jàpp moom professeur am na ci wàllu wu mu taxaw di ci jàpp di ci liggéey waaye ñun équipe bu Thiénaba TV ñun tamit wàll wi ñu nekk rek ñu ciy jéem a góorgóorlu di ci nap na bi Euh, ñu ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla gën ñoo jàppale euh, ñuy jaajëfal nag mbokk yi nga xamee ni saa su nekk ñoom ñu ngi jàppale euh, di ñu gunge ci ñaan yeeg ci def-def yeeg ci épaule ñu xam naa dinañ ci dellusiwaat muy jataayu remerciement boo xam ni fii ak suba dinañ ci dellusiwaat plateau en direct gërëm ñi nga xamee ni gàmmu cana ba canaba jàppale nañ ci canaba TV teg nañ ko loxo ba canaba TV peut-être li muy xalaat bu mënul lépp tamit am na lu mu cay def ngir Thiénaba euh, jëm kanam kon professeur ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la jaajëfal jaajëfal équipe bu bi nga xam ni ñoom la ñu àndal euh, ci caméra bi ñu ngi ànd ak euh, Abdoulaye wàdd ànd ak Mor Talla Pape Serigne Sarr Talla Sarr muy équipe bu Thiénaba TV équipe bu gàmmu gi waaye ànd ak Talla Niass Diop ànd tamit ak ki nga xam ne mooy Ajaratu Mami Diallo ci reportage bi ak Ablaye Ndaw Alpha Ibrahima Sarr Moussa Ndiame Gueye ak Mbaye Sow équipe reportage équipe bu Thiénaba TV équipe bu gàmmu boo xam ne élargie la Euh, pour que rek euh, ñu mën a matale li nga xamee ni euh, moom lañ ci war a def di leen jox nag dig daje ndax guddi gàmmu gi tamit noonu la équipe bi di détaché ci dëkk yi ci dëkk bi ci gàmmu dinañ dem kër Baye sëriñ taala Xaar Seck macha allah nañ ko daan defee rek ànd ak njobootu Baye Serigne Talla Xaar ci njiital Serigne Ibrahima Seck waaye dinañu dem tamit ci njabootu Serigne Mbaye Babacar Seck Serigne Maodo Babacar macha allah ñu ngi koy ñaanal gàmmu gu njëkk gu ñu gàmmu ginnaawam mu ngi nii ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na dugg àjjana waaye njobootam nañ daan taxawoo gàmmu gi tàllal nañu loxo Thiénaba TV euh, macha allah ñoom tamit dinañ fi dem xam naa de passage may wax rek képp koo xam ni yaa ngi am gàmmu ci biir dëkk bi bëgg Thiénaba TV gunge la ci tamit euh, numéro yi mu ngi noonu 77 510 42 52 boo ci wootee rek bu ko defee nañ programme équipe andil la ko euh, ñu dund yow nañ ko daan dundee penc mi nag nañ ko daan relier en direct ca Ibnu Muhayib ba tantu sëriñ Asek borom ndigal loolu tamit ñu ngi koy waajal pour fanaanee gàmmu incha allah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 ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV wali say bi ahadun yàpp ri an annasuunahu